jërë ngeen jëf euh, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax Aliou Ba maa ngi lay kontaane ak équipe bi nga xam ne moom nga àndal yëpp Yacine bi ci digital bi Makhtar Lom passe partout maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf yeen ñi nga xamni yeen ay bàyyi xel ci RFM 94.0 suñu page Facebook RFM l'officiel euh, yeen ak seen journal des faits divers khalas ma and ci ak Mamadou Ndoy Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye Bane siyaaraat na la bu baax ma ngi lay ziar di lay bëggé di la ñaanal jamm di ko ñaanal Ndiaye di ko ñaanal ñi déglu ñëpp yalla nañ yalla may jamm def jamm ci réew mi yalla na ya yalla sorti sutura ci réew mi sutura ko sorti ko ci kër gi sorti ko ci nit ñi ñëpp am sutura ñëpp mucc Amin, amin waay Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu baax Ababacar. ngeen def nag. nuyu Ndoye Bane di ñaan jàmm joojee muy ñaan. Mm. yàlla nañ ci ñëpp am ba doyal ci. Eh, di sàkku ci waa Sénégal. Mm-hmm. nañuy farataal masque yi. ñu mm-hmm. farataal am réew boo fa nekkee. Mm. waroo di tooñ. Mm. tooñ weesuwul kilifa cim réew. dogal na di leen masque ngay def naka su dul noonu bay daan ji ci fekk. Mm-hmm. buñ la waxee li ñu alamaan ci semaine bii ñu fan yi ñu génn ci ñàkk masque lim bi ni muy toll. dee leen masque wu beneen bi topp mooy senegal rek lay gisee nit ku ñuy forcer ci njariñam. Hmm. ci sa santé. waaw boo defee liy wér. waaw dimbali ñu ngeen def ko loolu moom amul. xam nga Aly Ngouille Ndiaye mii masque doon nit ñi moom danañ yéex a jote ci moom kon bu taxawee ne dee leen masque dañu war a xam ne suñ njariñ la. te damaa dégg euh, ministre bi bi ñu invité woon tey mu ne koo fi saaga koo fi waaw mooy suñu mooy suñu ministre ñun ñun jeunes yi ah d'accord ministre de la jeunesse donc koo fi saaga ndey <laughs> nee na koo saaga ndey mu mer mhm. léegi nag yow mi ñuy saaga ngay mer yaa jël risque ba rey sa yaay yow mhm. nee na nag moom xool saaga ak nga nga jël sa yaay rey ko euh, moo wax loolu waaw parce que feebar bi boo ko jëlee ci mbedd mi mhm. yóbbu ko sa kër sa yaay bu faatoo yaa ko rey am saaga nañu alu ah, tax wax ji ñagas na de noonu la ko waxee. mais ni mu ko waxee nii. man bi ma bi a gën a ñagas. Eh. ay waxi bu ci takkul masque su sa baay wala sa maam deewee yaa ko rey. dëgg la il faut oser dire li nga xam ne moo fi. faut pas nag yàllaay rey da nga naan. yàllaay mais déet ah, rey yow la ko jaarale. benn jeune reyu fi kenn mais mais boo jëlee feebar bi ci mbedd mi Ndiaye. jël ko nga dugal ko ci kër gi te xam ne yow feebar bi li mu mën a. def ci yow li mu mën def ci say way jur ëpp attanu ko wa d'accord na naa loolu yoy ke d'accord na ci ak yow mo deggu li ma commencé nañu faratal masque xam nga ki wax li moom da jexal da jexal téré yi hmm. nañu faratal masque yi njaay barki demb ay bëgg tek teg yaara yaa yaa sa ndey yaara rey sa bay yaa leen rey ko ko deful yaara leen ray di yaa barki demb la dem di def reportage dem ngaay yaa len ray sa way de diggante 14h ba 15h 16h mbedd mi ku ci nekk yaangi tok su buntu kër tek sa ataya kenn takku ci masque ña ngay naan di paasante kaas ya man damaa yéemu te xoolal koo ci jox micro soo waxeek moom bi da ngay rus rus goo xam ne da ngay mel ni nit ñi Sénégal beneen planète la feneen la. waaw mais déedéet baan ñun juddoo ñoo feebar bi judd judd juddoo juddoo wuñu. fu mu juddu donc nañuy continuer di sensibiliser. judduwul sax xam nga bi muy soog a ñëw. du ñëpp ko gëmee woon nii. fii nga daan toog naan la ci Chine bu ñu ko sàggan ndax mën nañ cee bañ a mucc. Mm-hmm. waaw mu ñëw. waaw ñuy sensibiliser tant que gis nga bis bu ñu toqee ci wax ji. Mm-hmm. musiba am et comme nit ñaa ngi comprendre xëy na li indi kii dana indi keneen nañu continuer sensibiliser rek te bañ a décourager. et puis yàqkat yi nañ arrêté nit ñi dañoo war a lii feebar bi combat la boo xam ne ñëpp a ci war a bokk. politique yeeg religieux yeeg xeet yëpp a war a bokk xàccandoo dóorandoo mais da gis nit ñi jaar fee. lu état bi wax am nañ ñeen ñeneen ñuy dem ci tele yi di yàq communication état bi te ñëpp dañoo war a xoolandoo ci benn direction eh, eh, eh, ay naan ay naan ay naan état bi dañu échec fii da ban Amérique sax dafa échec ci feebar bi feebar bi amul benn pays bu ci bu ci bu ko bu ko réussir xeex boo xamul euh, feebar boo xam ne xamoo lu koy faj xamoo fu muy jóge xamoo nu mu lay dalee waaw mais na état bi bàyyi làmbatu ko si bu tayee mun a jëm leen fii suba mun a jëm leen fee gannaaw suba. mun a état Amérique sax day làmbatu. Ah. France day làmbatu <laughs> ñëpp ay làmbatu fi feebar bi nekk yëpp ku ci nekk. furnu bu ta tàkk. wet gu ne lañ koy uppee. dëgg la de c'est ça nit ñi positif. ci feebar bi këriñ a tooy. waaw bu ñu doon upp ba ngoon it duñu le ñee dañoo guusle. man kay li tooy ci man te te man man Ndiaye ma bëgg nga leer ma mooy ñun Sénégal ñun ñaata lañ 16 euh, millions d' waa 16 millions. 16 millions lañ bon officiellement loolu la ñu ne femmes yi ñoo ëpp homme yi. waaw man nombre 17 millions yi man fan ko jëlee moom ba loolu bëgg naa ngeen. leeral ma millions la di <laughs> man man man nombre bi nan la def ba mu yegg 17 millions man. loolu di ngeen ma ko leeral ci kanam. ñan ñooy 17 millions. <laughs> nañ jëm ci Ousmane Thiam mi. réew mi Ndiaye Ousmane Thiam yi. li ñu war a wax daa bëri de. dañoo yokk te yëguñu ko. ah nee non ñun 16 million lañ. waaw ñu ne jigéen ñi 17 millions lañ. ñoo ëpp góor ñi. waaw mais nan lañ def ñun ba ba ba ba nombre bi tollu 17 millions. ñu est-ce que matat nañ 16 corona bi jël na de. yaa ngi dégg. corona bi xam nga ba pare ñu ne. gaal gi ñëpp góor ñi gaal gi jël na. waaw mais nag gaal gi góor ñi la. 17 yi jugee 17 millions 17 millions yi. waaw damay enquête damaa pareegul. léegi nan dem ci Ousmane Thiam mi ma xool li mu def après xam naa balaa émission bi jeex sama enquête dina mat ma leeral leen. Ndiaye soo mënee def rappel ci Ousmane Thiam mi mooy ndaw sa nga ko doon fayee ko xaalis ba. Ah, mooy ndaw si doon jaayee. abaya waaw. am lu ci Ousmane Thiam jël ci li mu wax. waaw war koo fay di ko dawloo. di ko dawloo. mu ñëw ci yow di jooytu. waaw ngay def sa recoupement woo Ousmane. Mhm. Ousmane yónnee la ay vidéo yoo xam ne ndaw si da cee sàgganu. voilà maanaam vidéo yu rafetul ci gis-gis. voilà voilà. Euh, su ma juumul convoqué woon nañu leen. waaw Ousmane weddi na ndaw accusé na. accusé voilà ah. c'est que li ci gëna graw du du du ki rek nu mu du rek euh, abaye rek. Mhm. ak d'avion mhm. toujours ci li ndaw mhm. ci wax. ci week bi information yi jot Ousmane mi pour que. affaire yi ñu arrêté ko pour ndaw si arrêté affaire coow li pour que ñu toog waxtaan. Mhm. mais nag ba ñu waxee ndaw si ba pare dañoo woo Ousmane Thiam jël version am. Mhm. version Ousmane Thiam la ñuy ñëw déglu ba dégluwaat ndaw si mu tëj ñu xool ba xam nit ñiy déglu jugé xool xam ni foofu fu dëgg gi ne déglu. ma ne ko kon bàyyi ko fi soo ko fi bàyyee lu fi jar ci kàttanu yàlla yonent bi dinañ la ko yónnee mu dellu Mauritanie jël cent cinquante mille yi dem ak moom Mauritanie ci suba ga. léegi yàlla dogal nag. bagage yi des yi fi des nekk fii ci suñu loxo awa di ma kari kari téléphone sama xaalis sama xaalis sama xaalis sama xaalis ma ne ko xaalis xaalis dama ne ko dëgg la ñun ñoo yor sa àq dëgg la waaye nag dafal ndànk rek awa defal ndànk ñun ñoo yor sa àq mais dafal ndànk rek man it ci nit rek ci doomu aadama rek ma ne ko awa dara laa la joxu joxuma la benn dërëm awa saa boo duggee senegal say bagage sa ngi tege soo ñëwee nga jël ko mais amul benn dërëm bu may yëkkati di la ko jox fu la neex nag demal foo ma woo ma wuyu la billahi alladi la ilaha illa hu wax ci loolu booy sax di ma sonal nag tey ñoo dem jaay ma ne leen déedéet xaalis dafa neex te xaalis dafa gaaw su ngeen jëlee bagage yi di ko jaay par détail di ma indil ay dix mille ak quinze mille au route ndax su boobaa mën naa koo lekk ndax xaalis dafa nooy léegi la ma bëgg mooy fexe leen rek ba am ko jënd lépp li fi ne ku ko mën a jënd su ko borom jëndee ñu yëkkati xaalis ba complet ma yónnee ko ko coow li jeex su fekkee ne gisuñ ko jënd lépp ngeen bàyyi ko fi moom heure bu ñëwee mu jël ay bagaasam yàlla dogal ñu ba ko fi gisuñ ku ko jënd ba yàlla dogal mu ñëwaat fi ci ci ren jii ñëw na fi nag ba mu ñëwee euh, daanaka waxutuñ waxu bagaas dafa ma laaj li des ci bagage yi ma yëkkati ko jox ko ko bi ma ko joxee li des ci bagaas yi waxatuñu waxu bagage waxu bagage jeex na ci suñu diggante mu nekk ci sama kër gi ñu nekk fi ak teraanga di fi di fi nekk ak jàmm ba corona bi ñëw mu tëj ko fi euh, moom mu ne fi ñu mu soxla béewu Tunisie yore 600 euh, mu soxla béewu Tunisie ne ma man de damaa bëggoon sax ñu ut ñaari bee dem parce que man indiwaale naa 600 mille nañ dem Tunisie ma ne ko man damay faral di dem Tunisie yàgg naa de bëri tànk di dem Tunisie ma ne ko foofu la gëj naa fa lool amul benn problème kon nañ dem ñu uti bee ñu dem di uti b fekk boobu jamono mbirum corona ak seegu senegal waaye mu ngi lëmbe àddina ñu dem di uti bee avion mënta fexe fexe fexe ba am bee bu yomb mënta fexe ba am bee bu yomb bu ñu war a amee ñaari bee avion yooyu noonu ñuy wër di wër dem mënuñoo am bee ñu mujj ñëw toog ci kër gi mu woo benn xaritam bu nekk Tunisie Aziza lañ koy wax mu wax ak Aziza ne ko damaa soxla ñaari bee su ko defee euh, man bu ma ñëwee ma ma ma ma fay la Aziza ne ko benn bee bi dama koy may sama xarit bi man maay xaritam awa moo ma boole woon ak moom yàlla def ci suñ diggante kóllëre Aziza ne ko benn bee bi daf ma koy may soutien la beneen bee bi mu ne ko sa bee la bu ma la ko yónnee danga may danga ma koy fay Tunisie corona ba dugg fa Ousmane moo wax. waaw Ousmane ba léegi mooy mooy mooy waxaat. Mm, avant muy waxaat. waaw. Passepartout daf maa jox fii ay document waaw mm-hmm. kii benn waay la boo xam ne Mouhamadou Joxaane la tudd. waaw mm-hmm. ne le 27 septième mois bon ba ñu téye date de naissance ay diplôme am yëpp a ngi fii. Mm-hmm. li ma ci mën a wax mooy jàngee na média centre. mi ngi nii am na aussi benn femme boo xam ne. Euh, ay passeport am moo fi nekk. ngeen baal ma de. xam nga ne dana ko yitteel ay satu Jum la tuddu mhm. ay satu Jum mag la. Mhm. passeport am mi ngi fi 27 mars la juddu yaakaar na naa. Mhm. na ñëw fii voilà na ñëw ci passeport tout foofu lañ mën a yem daal. Njaay comme ça. Uh-huh. weekend bi jot nañ ay pression yoo xam ni lii nii bëgguñu woon mu jàll. mais ci biir waxam damaa dégg mu ne. waaw mook femme bi dañoo waroon a am ànd dem Tunisie. waaw moom ñaar. waa te ñu dara. ci ci Facebook lañ xamante. lu ñu war a wuti Tunisie. ah loolu jaaxal na ma tamit. donc waa ji ndaw si rejeté wu. kii moom sëriñ la kii wax ni ah. lool la ma ndaw si wax de awa nee na ma sëriñ la xaw ma nag. xam nga dëkk bi nekk fi sëriñ daa yomb nag man su ma neexoon léegi bàyyi. yombul nekk fi ab sëriñ kat yombul. Ah, vrai sëriñ laa wax non non sëriñ sëriñ rek waxu ko vrai yokk goo ca vrai ba. Ah, dafa am vrai sëriñ mais nekkub sëriñ daal yomb na ci réew mi. xaw ma nag ab sëriñ xaw ma sëriñ lu mu doon waaye daal awa lool la wax loolu la ma wax mais li ma ci jaaxal mooy waa ji dafa dafa doon bañ affaire génn ak ndaw si mais doon lañ takk pour waaj a dem Tunisie ànd ñoom ñaar kii bee leen fi tëj nu mu tuddati corona gi moo leen fi tëj beneen mooy li ma njëkk jaaxal ci biir élément bii ngeen di bëgg a ndaw si waa ji dañi moom du yàq deru jigéen du yàq deru kenn mais avant ñi muy wax ma ngay tontu bi ma nee ko ku tudd awa da lay indi xalaas nee na nangam ak nangam réaction bi mu njëkk def moom ma tiital ci kun naan sëriñ envoyé ma ay photo te nee du yàq der yoo xam ni ndaw see ku ko yónne woon te nga ne yow doo yàq der hmm. yow xamoo ma. loolu nit ñi xam nañ danger bi ci nekk. xamuñu ko waa ji. waa cyber criminalité sax nag. waxuma la waxuma la jigéen yónnee lay photom de. mais yow nga jëlaat photo yi. waaw envoyé ko ko nit. waaw xam nañu danger bi ci nekk. non awa mii su xamee ay droit am xam fa jaar. Ousmane tey waaj yónnee na la photo yi. Ousmane Thiam du laal suuf ah. tey waaj waaj yónnee na ma ko te wan naa leen ko démb. wan nga ñu ko. ah ah, ah. ah man ah, ah man. yónni wu mu la ko dama la ko woon. xam naa kon boobu man gisuma ko woon <laughs> xam naa kon gisuma ko <laughs> xam naa xam naa bu ma ko wanee xel xam naa nag ma ko wanee xel. kon ñu déglu ko de. xalaat faaw ma demaat ci docteur Kourasey Ndiaye mu soppi sama lunette yi ndax yi nga six cent mille am ci boobu jamono xaalis bi nga xam ne mooy six cent mille bi mu yore woon waroo koo jëndee bee yaakaar ndaw soosu boo xam ne dina ko dëggal tax mu dem di jël xaalis boobu dem kër revier lu mu gis jënd di ci jëndal boppam wax dëgg yàlla di ci def ay teraanga mbiram corona bi dugg na fi te ñun sax dañoo tëj fi mu toll ni liggéeyatuma aw ma yaakaar ne li ma la waxoon dinaa ko mën a def yaakaaram tas diir muñ ci kër gi corona tëj nañ frontière yépp tëj nañ aéroport dara doxatut ñu toog mëntut a dem xaalis ba mu amee woon jeex na mu toog loolu di dundee yaakaar ñu lijjanti lijjanti lijjanti mu të koo wax mu layal la corona bi koo wax mu layal la corona bi ñu toog day xaar yàlla ba fan yële passé mu ñëw taxaw ne ma waaw sama 600000 yi damaa bëgg nga sama xaalisu bee la woon dama bëgg nga régleel ma ko parce que dama war a dem ma ne ko déet aw yow ban xaalis nga ma joxoon ban bor la mu ne ma sama xaalisu bee bi kanaan nanga wax wax wax waxu jigéen ma ne ko awa bul indi problème gan gu ñëw sa kër sax buy ñibbi di nga làmb poos jox ko waxuma laa yow nga ñëw ci kër gi def fi teraanga kon am na loo xam ne bu ci yegg loolu day yàq diggante mu ne ma man seetuma ci dara sama xaalis laa soxla mën ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko yàlla baax na ñu toog tuuti awa commencé sama xaalis sama xaalis bu dégg bëccëg suba ngoon xaalis xaalis xaalis maak moom ci kër gi ba mu mujjee ñëw dem def plaintam bu njëkk ñu toog tuuti awa mënuñu am bee mënuma am bee bu ma jox awa man te wax dëgg yàlla sama gan la te sëq nañ teraanga su ma ko mënoon am ko dama koy compte liquide na ko awa bul yëg bu la dara metti jëlal lii nga lem jox ko argent de poche jox ko lépp waaye yàlla dafa dogal corona tëj ñu ñun ñëpp dara mënta am awa dem def premier plainte xawma lan moo ko lan moo ko influencé lan moo ko génnewaat ci plainte boobu ba mu ñeekuwaat ñëw di ma baalu àq ba jël audio boobu noonu ma la yónnee daa di ma ko yónnee di ma baalu àq di wax ak man teraanga ba ne ma sax dinaa ñëw ci sa kër def ak yow vidéo su ko defee fépp foo xam ne dañ dafa yàq sa dara wala dara nga jël loolu partagé ko mu dem man maa bañ vidéo boobu na ko déedéet loolu xalaatuma ko parce que man new ma fi di dindi tuuma daal non yàlla baax na man sama mbir yëpp bàyyi naa ko yàlla awa wuññeekuwaat bi mu ñëwaatee ci kër gi ñu nekk fi di dundaat ci jàmm nekkaat ci jàmm ak njaboot yëpp ñuy nekk benn nekk ci jàmm euh, ñu toog ba jamonoy tabaski bi laata tabaski bi sax lim bëgg yàlla dogalu ko mu échec far nag mu sulliwaat mbiram xaalis ba ne sax bagage yi la ma ko waroon a jox ci xaalisam fi mu toll dama koy joxaat ma ne ko yan xaalisu bagage bagage yi ñu la jox li des ak bagage ba nga jëloon lañ la ci njëkkoon a jaay loolu ngay laajaat ba tey awa dem defaat deuxième plainte parce que nee na vidéo yi ma la yi ma ma la won noonu ay vidéo la bu la neexee ma yónnee la ko waaye damay bañ a loo xamante ni tamit rafetul dara ci ci ci ci dundi doomu aadama ndax jigéen la te yàlla mën na koo teg ci loxo ku góor te borom njaboot la bëgguma yàq der bëggumaa bëgguma xaawi sutura nit man bëgguma ko ku xaawi sama sutura it man banaa laa yàlla waaye man duma xaawi sutura doomu aadama xalaatuma loolu dama koy jox xaalisam ndax man bokkuma ak moom ndey bokkuma ak moom baay amul lu ñu war a mën a bokk ba tax moom war a def teraanga noonu ci zéro léegi nag sama xaalis laa soxla mu dem calculer neuf cent xawma ñaata mille bi mu def ci plaintam romb na six cent mille yam loon wax ne man maa ko ameel lii may wax ci maak moom ñu ngi yéeg ci yoon di wàcc xalaas dégg nga ko njaay mi ngi weddi rek de mi ngi weddi rek de mi ngi weddi déglul awa woote na waxtaan woote ak woo na commissaire bi commissaire bi woo na ma sànq ku nekk woo na ko pour di joxe ay consensus nañ fexe niñ ko waxtaanalee ba mu rafet waaw ma woo na sama xarit bi nekk France nee na ko waxal ak awa sama client yi kenn ku ci nekk foo ne ci àdduna bi yaa ngi may woo naan ma Ousmane dégg naa sa émission sa ba sa tur di jàll ci ci émission Ndoye Bane beeg ca xalaas waxal awa mu retiré waxal awa waxal Ndoye Bane mu retiré yii Ndoye Bane man sàccuma jagatuuma jaayuma dorog jaayuma yàmba sama ñaq laay sama ñaq laay dundee gis nga sama xaalis bii ku ne xam na entre diggante Tunisie ak Algérie ni mu méttee hiver day sedd guyu da ngay taxaw di ko liggéey damaa ngi nii problème mu tànk yu métti laa amee toll sama xaalis bii du xaalis xaalisu caga du xaalis bu ma góor may dama koo liggéey ñaq Sénégal nag xamuñu ko dóor ku fayu la ñu xam sa dara ngi yàqook ña ngi lay revue de presse nañ ma revue de presse fu nekk nañu dugal samay vocal fu nekk dawuma si daayuma ci sama ñaq la sama alal la atte bor fay la tudd ay bagages nit ki jël xaalisam valeuru un million cinquante mi ñu taxaw ne naa ko bàyyee bu dee dara àddina jaru ko ba ma nekkee Sénégal dañ ma ko may moo fi ñëwee am problème bi avion dañ ma koy jox su ma amee problème mu xaalis dañoo yëkkati un may ma luy ndey may bàyyee sama xaalis tiitu ma ci ragalu ci bañu ma ku ma yóbbu ba cour de kenn du ma ci intimité wala nga ma ciy tiital ndax lan sëriñ la man la boo xëyee tegal vocal bi xalaas tiitu ci dawuma ci sama xaalis daf ma koy fay ci nii wala ci naa ndax bi may nekk Sénégal di sonn kenn dimbaliw ma bi may dëbb dëbbal bay génn di dem di tukki di jënd sama bopp samay bagaat jënd sama bopp sama billet avion kenn jàppalewu ma kenn dimbaliwu ma Sénégal nag xamuñu ko dóor ku fayu la ñu xam bu fekkente ni li ma ko wax wala li ma wax amul demal portewaat ma plainte demal nga porte ma plainte j'assume na ma dem portewaat plainte pour déformation du nee na moo ne ci dëgg lu muy tiit lu muy ragal lu muy tiit lu muy ragal du nee na sëriñ na gàllaajam dem police du dem tribunal lu muy tiit lu muy ragal fii yàlla fi nekk dara nekku fi Sénégal ñu ci bari dañoo war a ba ni ñuy def lekk xaalisu nit taxaw ni ko fu la neex demal teg ko ci ay lan ci aw ay gàllaaj ak ay loolu ku nekk di la woo naan la su ma doon alal ji yaa ko liggéey mënulaa liggéey su ma doon yow a bàyyi ko sëriñ yi dañuy yàq sa yaram ak dañuy yàq sa fii yàllaa fi nekk leneen nekku fii xaalis bii du xaalisu caga du xaalisu njaaloo 6 heures di matin lay xëy vingt 21 vingt 22 heures laay duggaat sama kër kenn mayu ma mayu ma ko damay jënd damay jaay da ngay jënd soo mënee jënd boo ma lebalee bu ma la lebalee nga lebal ma bu dat ba joxee jox ma sama xaalis man caaxaanuma kenn mënumaa intimité wu kenn mën a maa xupp ba ma ragal ci kaw dëgg kenn mënumaa mënaase ba ma ci dellu ci ginnaaw ci kaw dëgg su ma defee dara ma tiit wala ma dellu ginnaaw rek daa fekk xaalis bii dafa lewul wala daa fekk li may wax man du dëgg ci man tiitu ma ci man mii di wax ak yow tiitu ci ragaluma ci delluwuma ci ginnaaw bu ma tëddee nelaw laay def dinaa ko topp ba kër ko bout su fekkente ne nag Sénégal dangay leb nit mu lebal la mu taxaw ngeen dem tribunal wala ngeen dem opposition wala nga porté ko plainte boo demee juste bi ni la bu na la fay loolu dafa légal bu fekkee loi bu nu voté la Sénégal man nañ ma ko yëgal man duma guinéen duma malien duma burkinabé sénégalais laa comme moom juddoo ci dëkk yaroo ci dëkk ëppalewu ma fi atte bor fay la tudd na ma fay bu dee moo ne ci dëgg jarul muy woo samay contact xarit yépp sama ñi ma nekkandoo loon espace waa extérieur ak ñëpp kenn ku ci nekk mi ngi lay woo waxal ak awa awa bu dee sënit la na dellu ginnaaw waxal ak awa sama ñaari jabar yi dañoo ëmb ba diis bu ma indil problème du du moo ne ci dëgg dafa yaakaaroon ni kam kam fi dàqoon daaw mu daw dem leb ko xaalisam tiital ko kooku daw dem dafa yaakaar ne man la bak na njaa bu fekente ni da ngay lepp ni nak te doo ko fay dagan na senegal nañ mako wax ah momit na xamni ah. yoon bi nek tunisie nek algerie nek espagne mo fi nek senegal yoon mom yoon yoon yoon rek fay la waaw yoon yoon la de li yoon bu de moko amel waaw hmm. ah. ah, non la demee de affaire non la Ousmane cham mbiri yegg na ca yoon. yegg na kay ma nga police bu nu mu tëddati. bu Kaolack bu nekk Ndorong. waaw fa lañ nekk. Euh, waa ji nag ma ngay dem wuy jee wuy jee ka ñëw ma ngay wuy jee a ñëw mais daal xam nga xam nga luñ ciy ragal. ma man lii dafa yomba saafara. waaw. moom waa nag nangu na ne amel na ko xëy na li mu wax moom bor bee tollul noonu. waaw waaw loolu la wax. nañ jënti bor bi mu fay ko. et dafa bëgg a weddi nii tamit commandé wul yére yi te ndaw si nee na moom moo ma commandé yére yi. mais moom lii mu def nii photo jàmbur yi mu siiwee rek problème. loolu c'est que beneen cas la. loolu moom beneen cas la. waaw photo jàmbur yi mu bëgg mu jël le fait que mu envoyé ma ko man rek. te xanaa xamoo ñoom ñii waa yoon yii xarañ nañ xarañ koo xam ne. Mhm. bu ñu jëloo téléphone waaj bi dañ xam kan ak kan la yónnee photo yi. waaw yow kan ngay waxal nii <laughs> ah, yow tamit <laughs> cybercriminalité gi ngay wax. Ah, en tout cas daal moom. commissaire Kandé. en tout cas daal li ma lay xamal mooy. Mhm. femme bi moom na xam ne buñ ko fayee ba mu fayeeku ba noppi. waaw moom mooy moom lay neex rek. waaw mais euh, na xam it ne. loi mais loi buy yónnee photo taat ne amul ci réew mi na xam loolu tamit. waaw waaw c'est-à-dire autant il demande est-ce que dafa am loi booy amee nit te doo ko fay. Ah. amu fi waaye loi bi jël sa yaram di yónnee góor it amu fi. amu fi. waaye waaye góor gu mu fayee ko bor la ah non dama bëgg rek mu def ko ci boppam rek cest ko nangu rek tamit na xam ni ku góor ki na xam ni jël photo yi ah, ma la wax njaay mi ah. bu fekkee maanu na man yàlla naa dee kii maanuwul waaye yow 17 millions yi nga xelal la eh 77 157 non non booy xam ne du koy daggee mooy góor booy yi nga xam ne ah. dañ naan amuñu luñ jëndee masque affaire yooyu te ku ci am gel dem jëndi jëndi lee ca pharmacie ba eh. déedéet ah. sori nga. Ah? internet pass ñaata la ñuy jënd par jour. bari na pour wu. waaw nañ ko jëndee masque te ku ci am gel dem pharmacie jënd say at.